ah soxna Germaine Anesthésie Diouf. dañu dem ci li gën a ci di jëm ci wàllug euh, examen CFEE euh, ak entrée en sixième nga xam ne candidat yi daal nañu koy tàmbali ni ki tey jii ci talaata jàppal ne fële sa Pikine euh, candidat yi ñu ngi toll kon ci juróomi junni toftal juróom-ñaari téeméer ak benn ci ñoom ñooñee ñetti junni toftal ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar di ay jigéen fële sa jurbeel kandidaa yi ñu ngi toll si ñaari fukki junni fii si Ndakaaru jëwriñ gi ñu lu jëm ci wàllu ñàng ak ñàngale mi ci daara yu ndaw yi di Moustapha Moustapha Baba Guirassy yi demoon na ca yenn ci ay centre ya ngir nemmeeku nañuy amale foofu bi lépp l'examen ba tey ci rajotaay xibaar dañuy euh, ànd ak kuréel bi boot ndaw reporter yu Sénégal mi nga xam ne doon amal ni ki euh, tey jile ab journée gi ñuy jagleel la liberté euh, de la presse ak lanceur d'alerte ki jiite ndaw reporter yu Sénégal di mi ngi Maram Ndiaye di ñaax rek ñi di kilifa yi ñoo gën a aar ndaw reporter yi ba tey bonk euh, bonk beneen mu di euh, task force di ab kuréel boo xam ne euh, dafay daal di sama xiyele fukk jigéen ña ñoom ñoo doon amal seen i forum national bu njëkk ni ki tey ji talaata. lañ fa doon waxtaan waxtaanee bokk na ci jëm ci wàllug euh, jafe-jafe yi nga xam ne avortement clandestin yi ñu ngi koy euh, jur tax kon ñu ñaax euh, ñi di kilifa yi ñu doxalal droit juridique ngir daal ñëpp am accès ci avortement médicalisé ba tey ci rajo tay xibaar daañu wax itam ci ni ñu jëfandikoo sine bari yi yenn ci ay gox yi nekk fii ci Ndakaaru bokk na ca fële sa fa nga xam ne kon nee nañu mbirum banditisme daal mu ngi fay bëgg bëri donte sax coalition anti drogue des HLM jot na jotoon nañ ko fa taxawal ci atub 2013 mu doon fa def ab liggéey gu am solo waaye nag sinébar bi circulé kon ci dëkk ba daal dina yàq bépp jéego nga xam ne jotoon nañu ko fa def te ci jamono jooju douane bu Sénégal daal dinay tekk loxo ci ab quantité gu am solo boo xam ne boo ko xayma ci koppar nee nañu toll na ci ñaari fukk euh, toof tolof ñaari fukki milliards ak juróom benn ak li ci tegu bokki lii moo fi gën a fës soo leen taaxiloo tuuti ñu ñëwaat si yaatal gi dal leen nag jàmm mbokk yi dañuy door xibaar yi wax ci examen entrée en sixième ak CFEE bi ñu daal tàmbali ni ki tey jii ca Diourbel bu gox ba demoon na ci yenn centre nemmeeku ñi waaye itam xool ni boobu la l'examen tàmbali. jàppal ne lu toll ci euh, ñaari euh, fukki euh, junni ci ay candidat ñooy sëgg kon ci li képp ngir jéem a kon wut seen i nijaasa gu njëkk fële sa région bu Diourbel te jamono jooju kii di yoro lépp lu jëm ci wàllub ñàng ak ñàngale mi di autorité académique régionale daan nay rafetlu kon participation ñi di jigéen ña ci bi lépp l'examen ci talaata ji ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin muy tombeek eh, di ndorteelu ko l'examen bi di CFEE ak entrant sixième préfet bu département bu Diourbel eh, mu ànd ci ak responsable yi ak acteurs yi yëngatu ci wàllu njàng njàngale fii ci njaareem daal dina wër yenn ci ay centre d'examen ngir xool eh, anam gi nga xam ne la ñu daal di amale boobi la moom autorité préfectorale bi daal di nay am mbégte bu baax a baax ci anam yi nga xamee ne la ñu daal di doore yi sant yàlla bu yan ci ay centre examen entrée en sixième euh, fii ci commune bi Diourbel ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin examen yi ñu ngi déroulé en tout ñu ngi koy jaarale ci yoon ci wàll yëpp nag ci wàllu élèves yi ci seen teewaay waaye également ci ñi leen di encadrer ak ñi leen di at mi nag yees téeméer ak fukki centre examen ci académie régionale bi amal nañ ci lu ëpp vingt mille candidats yoo xam ne ñoom ñoo war a composé ci examen yi ci région bu Diourbel candidats yi ñaar fukki junni lañ ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn jigéen ñi nag ñoo ëpp ndax fukki junne ñaar lañ ak juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn Euh, ñu góor ñi nekk juróom-ñetti junni ak fanweer ak juróom-ñaar euh, ñoom nag ñu leen séddale ki téeméeri sant ak juróom-ñeent. ñu interpellé ko ci problématique yi nga xam ne moom mooy wàllu kayitu juddu ci yenn candidat yi moom euh, ki nga xam ne nag mooy autorité académique de la région bi mi nga xam ne daal admilé candidat yi nga xam ne ñoom amuñu acte d'état civil danoon amal la examen. na ci candidat yoo xam ne amuñu kayitu juddu waaye nag loolu du leen tee ñu def examen bi. ndax ci conseil présidentiel bi monsieur le premier ministre joxe woon na ay instructions. ne ñu dem fexe ba régulariser candidat yi nga xam ne amuñu ay pièces d'état civil. épreuve examen yi nag danañ ko wéyandil mu wara jeex nag niki ci àllarba jile. ñu dem ca Pikine foofee nga xamante ni ñi euh, jongante ëpp nañ juróomi junni ñu ëpp ci ñoom maanaam lu toll ci ay euh, ñetti junni ay jigéen lañ ci centre ya fa ne nag euh, andi nañ jumtukaay bi war ngir boobu lay l'examen ñu mën koo def ci anam yu jaax yoon leneen loo xam ne itam daal nañu koy nemmeeku mu di yeesal li nga xam ne indi nañu ko ci atub ren ji tàmbale ko kon uh, ci lu jëm ci wàllu mbind mi ba ci sax fay bi lépp daal dañ ko daal di jaarale ci xarala yu yees yi Bakary Cissé candidat yi nekk en pleine concentration ci épreuve yu njëkk li ni mel nag di wone bëgg nañu am seen diplôme bu njëkk Fatima Touré nekk candidat am na confiance lool. waaw am naa confiance moom am naa confiance que dinaa am. ci centre d'examen Pikine 7A lépp yomb na. li mu candidat bi yokku na lool buñ sukkandikoo ci inspection d'éducation et de formation. juróomi junni ak juróom ñaar téeméer ak benn élève ñoo waral def seen examen te si juróom junni ak euh, juróom ñaar téeméer ak benn yooyu. ñett ñetti junni yi ak euh, ñaar téeméer ak fanweer ak ñaar yi ay jigéen lañu. ana lan moo bees ren ji ci examen bi. kon ay difficulté mais leen dañ leen permettre ñoom directeurs yi à travers benn plateforme Educa Soft ñu naan ko Anadol donc ñu mën a inscrire élèves yi même élèves yi nga xamante ne sax amuñu këyitu judd. permettre nañ leen def seen examen. fii ci Pikine 886 candidats yu amul kayit juddu ñoom tamit ñu ngi def examen CFEE ak entre en sixième seen situation nag danañ ko réguler ci lu yàggul jaare ko ci audience foraine yi suñu sukkandikoo ci IEF bu Pikine. boobule l'examen nag nit ki ëllëg lañu koy daal di jeexal tey jii di bés bu njëkk bi jëwriñ gi denk njàng mekk njàngale mi demoon na xool yenn ci ay centre fu ci mel ni école Liberté 1 ak collège Sacré-Cœur. tey daal lépp jaaroon na yoon bu ñu sukkandikoo ci euh, Moustapha Baba Guirassy jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng njàngale mi ci daara yu euh, ndaw yi moom Moustapha Baba yi daal di euh, rafetlu itam xale yu jigéen yi nga xam ne bëri nañu atum ren ji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 trois cent et quelques mille candidats euh, di fàttali tamit ci candidats yooyu euh, cinquante quatre pour cent ou cinquante six pour cent d' ay jigéen lañu donc des jeunes filles loolu tamit euh, dañ koy bàkkoo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 ak yu entré en sixième ñooy génnandoor te dina doon ci ay waxtu yu néew war a wuute lool ak yeneen at yu weesu. dañuy des ba tey ci njàng meek njàngale mi ak waa marine marchande bi nga xamante ne ni ki tey amaloon nañ ab ndaje di bës boo xamante ne dañ ko jagleel ñiy doog am bakk bu ko defee ñu wan leen lépp lu jëm a ci boobu liggéey ñoom ñoo ñooñee kon mën ko tànn ëllëg pour seen liggéey. visiteurs yi kon euh, daal nañuy euh, gis euh, ba nemmeeku itam ba visiter sax batu Aline Sitoé Diatta mu di ab initiative boo xam ne li ko taxul jóg mu di màggal bés gi ñuy jagleel ci àdduna wërngal këpp géej gi. ci bésu tey bi dañoo tànn def ko journée porte ouverte maanaam woo ñëpp ñu ñëw yegg si ci ñun. ñu wax leen nan la secteur maritime bi di doxee nan la ñuy def ku dugg fi donc ñi nga xam ne ñoom la ñu gënoon ciblé ñoo yokk tax ñu def bés bi tey moo nekkoon ñi nga xam ne ay bachelier lañ wala ay futur bachelier xam ne bu ñu amee seen bac dañuy war a def formation wut métier bi ñuy def ñun ñu wax leen tey lan la ñuy def pour dugg ci métier maritime bi. wax nit ñi ni ñuy liggéey ak nan lañ koy liggéeyee ba ku ci nekk tey jii boo déggee ñu ne la marine marchande nga mën a xam lan mooy marine marchande xam ne am na différence entre marine marchande ak ñi nga xam ne dañuy dem ci pêche bi ak ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ay militaire ñu wax euh, ci beneen euh, journée boo xamante ni convention des jeunes reporters bu Sénégal ñoo ko daal di amal niki tey jii ngir rek euh, waxtaanee lu jëm ci liberté de la presse ak nga xamante ni ñoom ñooy lanceur d'alerte yi. lañ fa doon waxtaanee bokk na ci jëm ci wàllu accès à l'information waaye itam kaaraange lanceur d'alerte yi kii di euh, njiitu kuréel bi boot ndaw reporter yu Sénégal de mi gi Maram Ndiaye daal di ci profito ngir ñax kon ñu gën a aar ndaw reporter yi. dafa daal di jot ñu xoolaat li nga xamante ni moom mooy suñuy organe de régulation yi. xool naka lañ koy organiser ba mun a méngoog anam bi nga xamante ni noonu la métier tasub xibaar di doxee ci àdduna bi jamono ji loolu tamit bokk na ñu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne ni moom mooy code de la presse bi leneen lim mooy euh, dinañ publier liste ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy propriétaire entreprise de presse yi ak euh, ñi nga xamante ne moom lañ moom lañ daal di reconnaître li ni mel nag suñuy service dinañ ci liggéey bu baax a baax ngir liste bi ñu daal di koy génnee texte tamit di xam le ni entreprise de presse yi yëpp dañoo war a conformé wu ak li nga xamante ni moom mooy yoon war nañ fexe ñoom it ñu xool naka la ñuy daal di fayee li nga xamante ne ni moom mooy seeni impôt. Et doivent aussi se conformer aux lois ki ngeen jóge teewlu di jëwriñ gi ñoo dénk euh, jokkalante moom nag doon wax ne daal ñi nga xamante ne moom lay liggéeyal lu yàgg dara dinañ fësal lu jëm ci médias yi nga xamante ne daan nañ leen ni reconnaître fii ci Sénégal dañuy ñëw ak yéen ci li ñu leen doon wax di euh, bés boobu nga xamante ni dañu ko jagleel ni ki tey ji xalaat ci wàllum liberté de la presse ak lanceur d'alerte yi nga xamante ni convention des jeunes reporters bu Sénégal ñoo ko daal di organiser sa Anastasi Diouf jàppal ne lañ fa doon waxtaanee bokk na ci li jëm ci wàllu accès à l' information waaye itam kaaraange lanceur d' alerte yi ki jiite kuréel bi boot ndaw reporter yu Sénégal di Maram Ndiaye daal dina ci profité ngir ñaax ñi di kilifa yi ñu gën a aar ndaw reporter yi. liberté d' expression doon luy jëmal démocratie tey. ñu amaloon ay waxtaan yu yaatoo yaatu ak ñëpp ñu yëngu ci wàllum tasum xibaar bokk na ci lu ñu doon waxtaanee du lépp lu jëm ci wàllum lanceur d'alerte yi. suñ nee lanceur d'alerte ñun tam dañ ciy gis suñu bopp parce que ñun liggéey bu ñuy def bés bu yàlla sàkk liggéeyu lanceur d'alerte la. mooy quotidien yoo leen bés tey soo leen xoolee am na ay quotidien yi génn da ngeen si gis ay révélation révélation boobu du ma ma dem Mademba moo ko def maanaam du un lam lambda ko ko def ay taskat xibaar lañ donc lanceur d'alerte yu njëkk mooy ñun donc ñun itam loi boobu daf ñoo amal njariñ moo taxit it boobu itam lu ñu ci bëgg mooy ñu impliqué ñu si biir ba ñun itam lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu baax la su ñun ñu proposé ko nga xam ne su génnee ñun itam dinañ ci gis suñu bopp parce que bëgg-bëgg bi yëpp mooy ñu am presse de qualité. fexe ba lépp lu ñu soxla ci xibaar ñu daal di ko am maanaam accès à l'information. loole nag bokk ci li nga xamante ni nii yàgg nañu koo xeex fii ci Sénégal teg si Sénégal doon réew bi nga xamante ni nii dañ koy daal di cité si lépp lu jëm ci wàllum yi looloo waral ba ñoom ñi lay jàpp nii dañoo war a rek am benn loi bi yombal accès si information yi la. loi sur l'accès à l'information xam ngeen ni Sénégal ay atangi ñuy liggéey si boobu la loi mais loi boobu boobu ba tey nag mi ngi nelaw si biir tiroir yi maanaam dañ koy tudd rek te demul assemblée nationale. te soo leen yëree réew yi nga xam ni moom la ñu wër yëpp am nañ loi boobu noonu. ñu faral di leen dóor di leen buntu xataal saa su manifestation amee ci réew mi reporter yi nag di jànkonteel ay jafe-jafe yu metti seeg seen digganteeg takk der yi tax na. ba président convention des jeunes reporters di xam ne ni bëgg nañ gisanteeg njiitu réew mi ba li ni mel ñu daal di koy waxtaanee. même à l'école dañuy wax ni soo leen demee sur le terrain xeex am suñun suñu position mooy si ginnaaw FDS yi maanaam ñoom ñoo ñu war a aar loolu aussi reporter nañ koy bàyyi xel que ñun suñu place su manifestation amee fu mu war doon ñu fay taxaw parce que loolu aussi dina tax ba nga xam ni dina wàññi mbir yi. ba tey ci ay xibaar ñu wax ci kuréel bu ñu duppee task force bi xeexal ak ak yëleefu jigéen ñi ñoom nag ñu ngi doon daje ñi ki tey ji doon wax ci lu jëm ci njuru jigéen ñi rawatina ñi nga xamante ni kon dañuy faral di yàq biir te loo xam ne teguwul ci yoon. kuréel bi di jaax di ñaax rekk nguur gu bees bi mu doxal kon euh, article 14 bu alinéa 2 ñeel protocole bu charte africaine de droits de l'homme mi nga xam ne Sénégal ah, daan na koy xaatim ci atum 2004 kuréel bi jàpp ne loole dina tax ba ah, ñëpp daal wala bokk jigéen ñi mën a ah, ñi wan lor ñi bëgg kon def avortement def avortement médicalisé te loole dina tax ñu gën a dooleel seen i wér-gu-yaram waaye itam seen i ax ax yeeg seen i Euh, et médicalisé. mu doon lu ñu yàgg ñaxtu wante nag ba léegi dara ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di task force ñu wéy nag di dundee yaakaar ci bi la forum national nag yile militante nag daal di bàyyi ko fépp fii ci Sénégal ngir daal di waxtaani conséquence avortement clandestin bi yoon nag ñu bëgg a yaatal mbir mi. li ñuy xaar ci waxtaanu ñaari fan yi rek mooy ñi nga xam ne dañ leen a boole ñu suñuy suñ suñuy mbokk ndax ñoo bokk réew mi ñu nekk suñu ay euh, suñu ay kilifa euh, ñu nekk suñu ay naataango. delloo jigéen ñi seen i àq ak seen i yelleef fu muy doore moo di. ñu daal di jëmmal article 14 bu protocole bu Maputo. état du Sénégal su su su bëggee euh, appliquer lu ni mel euh, dafay euh, yoon dafa ne moom yoon la mu mu mu mu woote ndaje ak waxtaan waxtaan boobu balaa ñu doon signer loi bi ci la ci la waroon am waaye bu ñu ko xasee ba signer ba pare defe naa ne dafa tënk état Sénégal pour que mu appliquer ko. ñàkk wàccoog justice reproductive nag loole mu mel ni nag dafay mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey. viol du diine du aada inceste du diine du aada au contraire lu àndul ak diine la lu àndul ak aada la donc li àndut ak diine nag àndut ak aada àndut ak njub donc bu fekkee ne dañuy def li nga xam ne mooy tax mu réparer njub googu noonu loolu équilibre la. ba léegi nag lu soxal avortement fii ci Sénégal nag daanaka sujet tabou la. ndax yenn gëm-gëm yi nga xamante ni dañ koo am moo taxit ñu bari ñoo ngi ci daal di ñàkk seen bakkan naam nag amuñu ay lim yu koy firndeel organisation yi xeex li ni mel taxaw temm ngir daal di ko fi jëlee. Amar Thiam dañuy daal di egsi ci chronique bés bi Mamadou Sy Albert li mu gis mooy askan wi dafa mel ni dañu gën a ànd ak pas-pas ci lépp li ñuy def daanaka daal ko ne boo xëyee yaa ngi lijjanti say mbir waaye nag ànd ci loo xamante ni kon day jëmale réew mi kanam. mbirum pari patriotisme daal ni nga koy déggee jamono jile bëri na lool mu doon loo xam ne euh, mu ngi jóge ci taarix ay réew Afrique yu bëri waaye nag euh, ñi jiite jamono jile réew Afrique yi war nañu gën a def ay jéego ngir gën a dundal patriotisme googee ci gis-gisu Mamadou si Albert. li ñu dëppee patriotisme di bëgg sim réew. moo ngi ci xolu histoire politique bu Sénégal ak bu Afrique laata ci biir ak ginnaaw indépendance yi nga xam ni am na ci jamono yi 1960 njiit yi daan ci sukkandiku ngir amal ay discours rupture ak li fi daan am ci wàllu aada ak cosaan ak doxalinu doomu aadama yi lii di patriotisme daan suuxat kon bépp xeex bu buñ daan amal bokk na ci bu buñ daan jàmbarloo ak tubaab yeeg ñu ni mel. daanaka juróom benn fukki at yi nga xam ni daal dina taftalu ci indépendance yu réewum Afrique yi la ko jëmal moo di patriotisme boobee askan yi daan àndal bëggoon seen réew lool. waaye ci Sénégal ñu nemmeeku woon ni discours patriotique yu ni mel daf daan deltu ginnaaw saa su ne ñenn ci waay politique yi bokkoon itam ci société civile daan wax ni sax bëgg sam réew daf fee jóge woon ak li ñu tuddee mondialisation. waaye mu mel ni jamono yii lii di patriotisme dafa amaat doole mu ngi wëy ci réewum Afrique yu bëri waaye itam ci yeneen réew yi àdduna bi Sénégal génnul ci loole nga xam ni nemmeeku nañ ko ci Sahel waaye itam ci li des ci Afrique mosuñoo nemmeeku bëgg seen réew ni mu amee doole ci jamono jile ci réew yi Afrique sowu jant eh, kilifay politique yi ñu ngi wëy di adapté wu eh, ci boobee patriotisme mu di bëgg seen réew bi nga xam ni askan yi am nañ ko waaye faaw rek njiit yi gën a suuxataat lii di patriotisme ngir gën a mën a suqali seen koom-koom. liggéeykat yee nekk ci centre Talibou Dabo niki tey daat nañuy jàkkaarloog taskatoo xibaar yi doon na naqarul nag eh, seen i naataangoo yi nga xamante ne dañ leen a teg loxo. seeni naataango yooyee ni ki ëllëg alarba lañ leen war a atte waaye nag laata loolu syndicat bi jàppal ne eh, daan na koy naqarlu mu ci joxoñ baaram tuumoo direction générale. lu toll ci juróom ci seen ay ñoñ la ñu defal mandat dépôt mu doon situation bi nga xam ne merloo na bu baax ñi di liggéeykatu centre bu Dabo yi nga xam ne ay weer a ngi nii ñuy jàppante ak direction bi ñoom nag jàpp nañ ne tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ndëddal seen collègue yooyee dara teguwul ci. ñu xamal ni loolu ñu wax ñëpp kenn mënu ci indi benn preuve matérielle bu ko génnee parce que nit boo koy takkal aussi da ngay wax nee nañ dañ faa ay mbalit. ma yaakaar ni tuur mbalit warul mën a tax nit nga koy fanaanloo kaso d'autant plus que lii du tey gis nañ fi suñuy camarades yu doon xeex hôpital la daan teg ñu jël leen tëj leen kaso pendant un an ba ñu génnee ba tey dañu perdre seen emploi ba tax na ñuy xamle ne centre bi li ko perturbé du ñooñee ñu jàpp waaye ci direction bi la jóge léegi yow nga ñëw yoreel nit ñi fukki weer ak juróom-ñeent fayoo leen yow nga ñëw ñu toog ay ñeenti weer fayoo ni ay salaire waa ñooñu amuñu sañ-sañ ñëw laaj nga leen waa lay xaar leen ma bu vendredi incha allah dinaa leen lijjanti lu ma leen jox yow vendredi France kenn tegu la bët mais kun ko defoon ni sa xol dina jóg. yaakaar nañu si le droit et di ah bu du paree foofu dañuy génn dem ñibbi. laata loolee nag jafe-jafe yi di wéy ci biir centre bi nga xam ne doxatul lu ëpp ñetti weer liggéeykat yi nag di xam ne ne ñoom tiituñu benn yoon ci li nga xam ne moo ñeel seen camarades yi. ndax jàpp nañ ne seet nañu wecc ci tuuma yi ñu teg seen kaw ñu wax euh, ci euh, drogue bi nga xamante ni euh, mi ngi dugg ak génn bu baax ci biir Sénégal daanaka ci yenn gox yeeg goxaati rawatina fii ci Ndakaaru ci diwaanu HLM falawul la ñaay ci atub 2013 askan ya fa yeewoo jot nañu taxawal ab kuréel boo xam ne li ko tax a jóg mu di rekk xeex mbiruma cinébar bi foofee si HLM waaye nag jàppal ne quantité cinébar gu am solo bi nga xam ne dafay faral di dugg ci réew mi daal di na yàq kon ay jéeg yi nga xam ne jotoon nañ ko faa def reportage jëm bàyyi. su bëccëg gi jotee moom dal gu mat sëkkay am fii ci HLM askan wi dañuy doxi seen soxla fàtte jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy dund su guddi jotee ab diir a ngi nii ñuy jànkonteel ak ñàkkub kaaraange gu doy waar. il fut temps amoon na ay moment xam dañ doon def patrouille pas plus tard que ci ginnaaw boulangerie bi rek agressé nañ fi la matin suñu doom bu ñuy jàngi ci jamono yi saisir nañu la police amoon na patrouille mais maintenant fi ñu toll nii dañu mel ni ku bàyyi seen loxo. nee nañ nag lii waral lu ni mel mooy sinébar gu bari gi nga xam ne dafa dugg bu baax a baax si dëkk bi. ñii dañuy gens ñii dañuy pikiiru ñii dañ koy tox ñii dañ koy naan mu nekk ay doom te xam nga nit li gën a cher ci moom mooy xelam nit ki nag bu demee ba àndut ak xelam mooy àndut ak sagoom. Abdoulaye Gueye moo jiite coalition anti drogue fii si HLM ñoom sinébar dong la ñuy xeex ay at a ngi nii yëfi dellu woon na gannaaw waaye jamono gi moom dafa jolliwaat. mais fi mu ne nii euh, drogue bi nga xamante ne moom la xale yi di gën a gën a yab nag mooy mooy cannabis cannabis mooy li ñuy wax yàmba moom parce que dafa accessible te te te njëg gi taxu ko seer noonu. lañ doon xeex yëpp ne nañ tàmbali nañ ko sax di ñàkk li ko waral nag moo di. réewu Sénégal bi nga xam ne drogue bi fi dugg kenn xamul nu mu toll yëfi dafa tas ci gox yeex goxaan yi rawatina fii si commune bu HLM. xam nga aussi loo xamante ne saa yoo yaa ngi koy gis yaa ngi dëkk ak moom yaa ngi rombante moom loolu aussi dafay dem ba nga xamante ne léeg xale yi nga xamante ne léeg-léeg ne naa mos ba xam te ji li nga xamante ne moom la ñuy war a def rek mooy li ma waxoon léegi c'est que ah, ci biir jumaa yi ñu ci waxtaanee ci biir église yi ñuy waxtaanee ko marché yi ñuy waxtaanee ko école yi surtout école yi. HLM tamit li ko sonal bokk na ci marché bu yaatu bi nga xam ne dafa am njarata lool fu nekk la nit di jógee si Afrique saw jant di utali marché HLM ubbeeku gi mu ubbeeku moo tax lu nekk fii dugg. daanaka ci weeru juin bi am na leen boo takku ñu jàpp ci Sinébar ci euh, gox bu ñu naan Moussala nekk ca Kédougou lañ fa jàpp toll na ci euh, ñetti téeméeri kilo ak lu teg ca AIBD itam jàpp nañ fa Sinébar am na nag lu toll ci ñetti téeméer ak juróom. ñeent fukk ak ñaari kilos yoo xamante ni jàpp nañ ko itam ci ay garab yu bon loolee yëpp buñ ko boolee war nañoo jural ñaar fukk ak juróom benn milliard ci suñu koppar. yemuñu ca ndax nag jot nañu teg loxo itam lu toll ci fanweer ak ñett ci kilo kilogramme sinébar goo xam ne boo ko xëyma ci koppar toll na ci ñaari milliards ak li ko ëpp ñu teg ko nag loxo ci ñetti fan ci weer juin ci biir réew mi opération yi ñu mujjee amal di seet ak ak di xeex trafic illicite jur na njariñ ndax lu ëpp ñetti téeméer ak juróom benn kilo cocaïne la ñu teg loxo ca Musala lu ni ñu ngi ko amal ki gaaw gi weesu yemook fukki fan ak juróom ci weeru yi ñu nekk brigade commerciale des douanes bu Musala moo def lu ni mel ndax agent yi nekk ci boobu boobule unité ñoom ñoo teg loxo ab camion frigorifique bu doon daw diggante Musala ak Kédougou jóge ci benn réew bu jege yow ak réewu Sénégal fu yi ñu amal ci boobule tax ñu teg loxo lu toll ci ñeenti plaquette cocaïne loolee ñu dal di koy nëbb nag ci biiru compartiment bu ventilo bi nekk ci frigo bi loolee lépp nag bañ ko xaymaa toll na ci lu ëpp ñaar fukk ak ñeent milliards ci suñuy koppar ginnaaw gi fukki kilo ak juróom-ñetti cocaïne tamit jàpp nañu ko ci aérogare bu ay AIBD ndax ab valise bu jóge ci benn réew nekk ci digg-dëggalu réewu Sénégal dal di waroon a wutali réew bu nekk ci Union européenne tax na ñu xam ne am na ay traces yoo xam ne dafa fësal ne cocaïne am na ci biir sac bi ci noonu ñu fekk ca fukki plaquette ak juróom-benn loolee lépp toll woon na ci benn milliard yu toftal ñeenti téeméeri million ci suñuy koppar naka noonu benn berline boo xam ne màkk guy Saalum lañu ko tegee loxo ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari kilo ci ay garab yoo xam ne baaxul opération boobee ñu ngi ko amal ci village yu Màkka Guy Saalum nekk ci goxu Ida Murit nekk ci département bu Koungheul yooyu les garab nag bokk na ci ay antalgique ay antibiotique waaye tam ay aphrodisiaque loolee lépp ba nu ko we toll na ci lu ëpp juróom-ñaar fukk ak juróomi million ci suñuy koppar loolee lépp ñu ko boolee toll na ci lu jege ñaar fukk ak juróom benn milliard yu toftal ñeent fukk ak juróomi million ci suñuy koppar lundi yemook ñetti fan ci weeru juin ab cargaison livraison bu def fanweer ak ñetti kilo cocaïne bu toll ci lu ëpp ñaari milliards ci suñu koppar la ñu dal di teg loxo tamit fële ca Fatick ak Kaolack nekk ci diggu réew mi. loo ni mel ñu ngi ko nëbboon ci ab oto type Mercedes boo xam ne immatriculation ba mu nga bàyyeeko euh, ca biti réew buñ sukkandikoo ci ab bataaxal bu bàyyeeko ci waa douane avril tamit benn tonu cocaïne jàppoon nañu ko ca vilu Kidira nekk ci frontière bu Mali weer boobee tamit lu toll ci juróom fukk ak juróomi kilo teg nañu jàpp Koumpentoum ñetti tonnes ci beneen gaal boo xam ne dañu ko daal di indi woon fii ci Sénégal ci weeru décembre tamit tegoon nañu ko loxo naam drogue bi mu ngi gën di lëmbee fii waaye service yu duwaan bu Sénégal xamle ne noppi nañoo xeex trafic illicite bu drogue bi ci anam yépp di ko jaajëfal moom aw Diallo di leen jaajëfal yeneen bu baax a baax ci seen teewlu ak seen kóol te fii la ñu yem ak yéen ci la jotaay xibaar yi mu jàll may am mbégte doon ci fekk yi ci kanam la ñuy dellu si bu juróom-ñetti waxtu jotee ma di ci fekk ak Tabara Diop léegi léegi Mamadou Awa Ndiaye ngeen àndal ak ganu 7TV soir ñun du ci dalal Ousmane Sam Ndiaye mi nga xamante ne ah, bokk ca Pastef fooy leen di ñu seetaan.